ci ku ko xam lool euh, di euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ñu ngi lay nuyu di am te dalal la ci Demb ak Tay encore une fois tàmbalee di la jaale euh, sa xarit sa wóllëre Youssou Diagne waaw jërëjëf maa ngi lay fay di nuyu mbokki auditeurs yi ñi xam ne ñu ngi ñuy déglu yëpp fu ñu mën di nekk ci Sénégal di rafetlu waxtaan bi ni ngeen koy defee ndax am na nay jamono ñu ngi doon waxtaana suñu benn mag bu ñuy wax Daouda fay Vava mhm. tey ñuy waxtaana suñu benn mag bu ñuy wax président yu Youssou Diagne mhm. ëllëg xëy na ñun la ñuy waxtaane parce que àddina noonu la dem yàlla na yeex bak yaaw yàlla na yeex mais bakkan mu mus dund dina mus dee na te te ñu koy sóoraale rek dana mhm. danañu rafetal suñu suñu suñu doxalin danañu rafetal suñu diggante ak ñi ñu dëkkal loolu c'est très important ñaare mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk te nag ñu ngi bëgg a jeex ci réew mi mhm. dañu daan mën a sukkandiku ci ñoom gis seen doxaliin ñu jéem leen a topp mhm. mais yàlla dogal na ne ndaw ñi nga xam ne ñoo yëngu tey mhm. moo xam ci wàllu politique moo xam ñu bëri ci wàllu syndicat moo xam ci wàllu presse bi ñu ci gën a bëri xamuñu mag ñooñu waaw pour di mën a roy ci ñoom dëgg kon xëy na lu mel nii su amee du lu neex waaye occasion lay doon ñu man ci profiter li ñu xamus akus néew ci ñoom mhm. ndax nag bari na ñoo xam ñoomu gën xam président Youssou ndax séq nañu ak moom loo xam man séquma ko ak moom mhm. waaye nag am na lu ma moom lu ma xam ci moom loo nga xam ni mhm. jàpp naa ne bu ñu ko fàttalee ndaw ñi fàttali ko suñu bopp dana tax ñu gën a defaraat suñu toogaay kon may tàmbali di ko jaale famille am di ko jaale président Abdoulaye Wade di ko jaale le président Idrissa Seck parce que démb rek bi ñu nekk ci dëj bi am na kenn ku doon fàttali ni Idrissa Seck bi mu taxawee dafa amoon ñeenti keno benn bi di suma frère di suma xarit di Ngiraan Njaay nekkoon Thiès yàlla jël na ko keneen ki ci toppoon di Talla juuf moom it doon kenn boo xam ni bu amoon solo la ak ku mel ni Omar Sarr ak ku mel ni tey euh, suñu président Youssou Diagne yàlla jël ko hmm. donc ñu di jaale famiyam di ko jaale aussi président de la république parce que bi mu tëddee nekk hôpital président déplacé wu na. Hmm. dem ba hôpital seeti ko. loolu it waa këram rafetlu nañ ko ba démb ci dëj bi. Hmm. wax nañu ko rafetlu ko mm-hmm. gërëm président ci loolu bu def mm-hmm. mais jaale ko également président Idrissa Seck mm-hmm. xam ne yónnee na fa également une forte délégation bi nga xam ne ki ko conduire mooy euh, le ministre de l'élevage Ali Saleh Diop donc ci njëlbéen daal loolu mun naa ko wax ci président Youssouf yow itam ñu la koy jaale ndax ku sekkoon ak moom lu bari nga doonte nee nga am na ñu ko gën a xam waaye ki ñu la joxoñ di président Doudou Wade moom tam ñu koy nuyu euh, wone na ni am na loo sekkoon ak moom ñu tàmbali ci kan moo nekkoon Youssou Diagne bu ñu la ne woon rek nga présenté ñu ko président Youssou Diagne. waaw li nga wax dëgg la am na lu bëri lu ñu seqoon wax naa leen ni seq nañu ci wàllu politique bokkoon parti politique seq ci wàllu état mais seq ci wàllu mbokk parce que président Youssou dafa doon mbokk frère ki sama papay bopp muy Cheikh Ousmane Diagne bi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal mu nekkoon chef supérieur de la CODEF ca Khadria donc ci wàllu mbokk également dafa am loo dañ ko seq. mais suñu doon président suñu doon wax ci président Youssou euh, li olof yi naan bu ñu nee diw baax baax na dañ naan bokk mbokk yaa ko wax démb pour joxe rek benn exemple fi ñu toog ci dëj bi kenn koo waxal bula la waxee li nga xam ni fala fala jaar ak président Youssou mm-hmm. nga xam ni nit ku baax la te mm-hmm. baax rek moo am solo mm-hmm. liggéey na un peu partout en Afrique nekk cadre Air Afrique liggéey fa liggéey boo nga xam dëkk bu mu mës jaar aussi mm-hmm. yàlla def na daf fay bàyyi ay trace am ci rafet mm-hmm. bi bu dellu see Sénégal di jàppale président Abdoulaye Wade ba yàlla def en deux mille président Abdoulaye jël pouvoir bi ñu def ko président assemblée nationale mm-hmm. bi mu jógee assemblée nationale comme ni nga ko waxee tout à l'heure également présentation bi nekk na fi ambassadeur mais bu loolu yëpp wéyee li nga xam moom day gën a jàpp ci moom mooy discrétion bi nga xam ni moom la am maanaam nit koo nga xam ni lii la ndox loxo ndijooram di jox loxo càmmiñam du ko yëg loolu dafa nekk loo nga xam ne lu am solo la te pourtant am na ñoo nga xam ne fa mu jaar jaaruñu fa la mu am amuñu ko la mu def defuñu ko te foo leen gis ñu tëgg seen dënn mais li olof naan maanaam maanaam moom kim nga doon da ngay bàyyi bañ yow la donc bu ñuy présenté président Youssou li may mooy un panafricaniste la parce que ko nga xam ne fu nekk jaar nga fa ca Afrique liggéeyal fa. Hmm. ko loolu weesu na sa réew parce que Air Afrique ku fa nekk liggéey la woon sa jaar rek Afrique nga doon liggéeyal. bi hmm. nga dellu sa réew également dem ba nekk deuxième personne wala troisième personne de l' état muy président de l' assemblée nationale. Hmm. je pense que euh, distinction mënu la weesu loolu. donc kooku mooy président Youssou bi nga xam ne bàyyeekoo na fi démb. Euh, uuf nañ njabootam c' est extrêmement important uuf njabootam nu ku ci nekk bu teg la foo nga xam ni ah yàlla def na wax dëgg yàlla mën nga bañ a am lenn loo nga xam ne looy metti la ci àdduna donc mën nañu wax ne l'homme d'état il l'était l'homme politique il mm-hmm. mais le père de famille également il l'était mm-hmm. dem na ba bi nga xamee ne mënatul nga ga mu retiré woon parce que fa dëkk ñu denc ko fa démb mm-hmm. seede nañu ni bu julli masaana jot dañ ko indil chaise tegal ko ci biir jumaa ji ndax woon waaye bëggu la faatu waxtu bëggu la bañ a dem bañ a dem ji ci hmm. jumaa daana def it imaam yi nga xam ne ñoo nekk Ngappoor ak yi ko wër yëpp muy jël ay yére di ko ñawlu di leen yóbbul ba fi may toog di wax ak yow da koy def di leen wax ni kuy dugg ci néegu yàlla di jiite dafa am na war a mel hmm. kon kooku franchement bu ñuy wax nit ku baax rek foofu la mën a yem hmm. donc loolu je pense que également mën naa ko seede ci moom. Mhm. te muy seede boo nga xam ne képp ku nga xam ne li ma wax dëgg la. Mhm. alors ñu tàmbalee ci homme politique bi président Youssou Diagne homme politique kan la woon. mooy discrétion xam nga lu mu am lu ko may fidélité ak discrétion. Hmm. déen dégg ko kenn musul dégg Youssou ci coow. waaw musul am ak politique moo tax ñu bari sax xamuñu ko. ñi mujjee ñëw nii waaw xamuñu ko parce que fësul xamuñu ko. Mhm. mais xam nga ko ñu dem bañ def le président assemblée nationale c'est parce que am nga jaar-jaar au plan politique. mais jaar-jaaram comme li ma la wax ñaari yëf la ko la ko la ko la ko firndeele. Mm. mooy engagement budul dañ ak fidélité. Mm-hmm. ñaari yooyu moom la boole woon di ko doxal amal njariñ nit ñi nag. lu ko booleeg président Ablaye Wade. alors politique bi xam nga président Wade pour ñu xam histoire politique bu Sénégal maa xam jaar-jaaru président Wade boobu. Mm-hmm. président Wade dafay yàgg ak famille Youssou Diagne mm-hmm. bi ñuy soog a créer PDS en 1974 mm-hmm. ki nekkoon premier adjoint wu euh, président Abdoulaye Wade tey à l'époque ñuy wax maître Wade secrétaire général ki fa jëkkoon nekk mooy Fara Ndiaye Fara Ndiaye moomu way juróom bu jigéen soxna Oumy Diané bokk ak famille yu Youssou Diagne nijaayu Fara Ndiaye boobu ñu dox góor kanji nekkoon ci les piliers ñi nga xam ñoo doon jàppale PDS à l'époque ak Cheikh Ousmane Diagne mi ma la wax nii. loolu moo ko boole ak le président Abdoulaye Wade. donc famille yu Cheikh Ousmane famille yu Youssou Diagne. Mhm. dafa teel a jaxasoo ak Abdoulaye Wade au plan politique. booba metti na. Mhm. def opposition yomb na. waaw héros lañ mhm. waaye booba def opposition jafe na. muy Fara muy tonton Góor Kandji mhm. muy Cheikh Ousmane Diagne muy Youssou Diagne donc mooy famille démb rek ndeysaan benn doomam dafa ñëw nuyu ma xàmmee moo ko sax mun ma xàmmee woo ma ne ko déedéet mu ni ma conférence bi Amadou Boucar Sadji doon doon introduit mhm. en 1978 à la chambre de commerce de Dakar mhm. bi nga jëlee parole intervenir man maa ci topp kooku doomu tonton Youssou Diagne mii fi génn tey la donc loolu moo ko boole woon ak le président Abdoulaye Wade alors ngeen bokkoon parti démocratique sénégalais loo jàpp ci moom ci wàllu politique ba tey. alors li ma jàpp ci moom mooy nit ko nga xam ni en privé comme en public maanaam bu mbooloo mi teeweeg bu mbooloo mi teewul. Hmm. kenn mënu la ni mëstaan ko dégg mu wax nit lu ñaaw. Hmm. muy benn. ñaareel ba lu ko nit gën a bëgg mu bakkoog yow. du xëccoo. du xëccoo parce que bu ngeen fàttali ko yàggul assemblée nationale. Hmm. comme président waaw. nekk na président ñu dem ci ay élection élection yu jóge mu am ay mbiicoo mbàlloo euh, bon ak yéeg ay petits détails yow nga xam ni budul yàq ci politique hmm. mu daal di ciy génn bàyyi présidence assemblée bàyyi présidence su assemblée donc loolu bokk na ci nga xam jàpp naa kon wañu ñu loxoom nanguwuñ ko waaye moo ko wacc moo ko wacc parce que booba xam na ni am na ñu bëggoon mu bàyyi ko hmm. manoon na manoon na bañ a bàyyi waaw manoon na indi coow manoon na indi leneen leneen. waaw mu toog rek ni pat. mu mais jàpp na ni fa mu jaaroon ba egsi foofu te li ma lay wax nii dafa wax na ma ko moom ci làmmiñam mu dugg sama nopp. Hmm. waaw fa mu jaar ba egsi fii. Hmm. ak la mu def ci àddina te musta ñaaw du tey la koy def. Hmm. te ba muy def loolu di am taraanga jooju bay defal ay mbokkam boobu politikul nekkul président assemblée. kon président assemblée bi mu doonoon dox nañ ba jamono egsi ñu ne ko lii yaa ko war a jël ko. téye ko it yàggu fa sax mais téye na ko téyin bu rafet ba ñu demee ba ñii naan na bàyyi ñii naan du bàyyi coow bëgg cee am. Hmm. moom mu génn ci. firnde bi ma lay wax dama lay jox témoin. Hmm. ànd naa benn guddi ak seen confrère le doyen Pape Mbodj. Hmm. ñu may dégg certainement. ñu ànd dem guddi seeti ko waxtaan ak moom. ba ñu waxtaan boobu lii ma la wax loolu la ma wax. ñu ne judd naa ba toll fii kenn mosuma dégg ci coow du tey lay tàmbali. wutuma ci politique dara wutuma ci assemblée dara dolli lu ma dara dama doon jàppale sama réew am mission mission boobu nag bu ñu demee ba ñii naan war naa bàyyi ñii naan war na bàyyi mhm. ndax bañ ma koy jox dañu ànd à l'unanimité jox ma ko ñëpp ni moo ma mhm. kon tey ña ma ko joxoon bu ñu ba am ñu naan na bàyyi bu bàyyi ban ma bàyyi mhm. donc bokk na ci li xam ne également jàpp naa ko ci moom. Mhm. alors yaa ngi wax sànq ne moom ak président Ablaye Wade euh, mbokkaleen boole lu yàgg depuis création parti démocratique sénégalais waaye kenn umpalewul woon ne ku jege woon lool itam Idrissa Seck la lana waraloon boobu proximité diggante président Youssou Diagne yàlla na ko yàlla yërëm ak euh, Youssou euh, Idrissa Seck. waaw xam nga xam nga d'abord bokk nañu région bi bokk parti bi. bokk également gis-gis ci yu bëri bokk gis-gis ci yu bëri parce que Idrissa également ak loo ci mën dégg dafa doon nit koo nga xam ne kilifa la yàlla mooy def loolu mhm. maa ngi koy wax ay nit bërki dem rek ci benn waxtaan man leen un million de personnes bu ñu toogoon bu Idrissa ni tëll nga xam ne kilifa ñëw na loolu yàlla moo ko defal mhm. mu am groupe bi nga xam ni ñoo nekkoon euh, les plus proches de Idrissa moom ci la bokkoon wax naa ko léegi. Mm-hmm. ku mel ni Badou Badou moom it yàlla ko yàlla xare àjjana génn na fi nee nañ mais y' un mois man démb laa soog a génn na àdduna ku mel ni ñoom Ngiraan Ndiaye ku mel ni ñoom Garmi Fall bu cees ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu defoon benn groupe boo nga xam ne parce que mbooloo mu nekk aussi gën a juboo da ci am gën a déggoo daf ciy am rawatina nag bu fekkee ni yéen a bokk benn région te Idrissa bokk na ci ñi nga xam ni doon nañu jàpp ni. président Youssou Diagne moo war a doon président de l' assemblée à l' hmm. loolu aussi xëy na qualité yi mu gisoon ci moom ba tax mu ni kii woo war a doon président euh, assemblée xëy na moo ko xam loolu xaw ma ko mais xam naa ne loolu aussi bokk na ci li nga xam ne indi woon na rapprochement seen diggante de sorte que ñoom ñëpp groupe boobu foo leen foo mësoon gis kii gis fi ka des. Hmm. loolu mooy li nga xam ne moo amoon seen diggante vraiment ñoom ñëpp ñu def organiser autour du président Idrissa Seck di ko jàppale également au plan politique. Hmm. ñoom ñu ñuy jàppale Youssou Diagne au président euh, au niveau de l' assemblée nationale. Hmm. ba yàlla dogal li mu dogal bon euh, réeroo am na àddu àddina la loolu day am ci àddina bon mu quitté assemblée nationale dem toogaat jàpp njàpp hmm. naka la dundee période bi Idrissa Seck demee ci kaso bi ndax boobu jamono itam ñu bëri xaajaloo woon nañu ak PDS xawoon sax réeroo ak président Ablaye Wade naka la dundee boobu période parce que lu bari ci ay seede euh, yu ñu dégg fidélité ak engagement bi nga wax daf ci dellu si. avec beaucoup de dignité. Hmm. dignité xam nga dignité mooy. Hmm. gis loo nga xam ne neexu la. neexu la nee nga di ko muñ. Hmm. ku la xamalul ku la warul a xamal du la xamal. Mm-hmm. ku la warul waxal du la waxal. man maa ngi rappelé wu Idrissa bi ñu ko jàppee. Mm-hmm. su ma juumul su ma juumul. Mm-hmm. man maay le premier homme politique. bu dem seeti ko en prison waxtaan ak moom génn fa dem seeti président Abdoulaye Wade keroog bi may ñëw di toog di wax ak président Abdoulaye Wade ci lu jëm ci Idrissa. président Pape Diop fekkee na ko mi ngi dund. am na ñeneen ak ñeneen ñoo nga xam ne xëy na mun naa Habib si fekke na ko. Mm-hmm. Assane Ba fekke na ko. Mm-hmm. ak ñeneen war na mooy au moins sept personnes ñu toogoon autour du président Wade. Mm-hmm. bi mu fi jógee dem naa ci président Youssouf à l'époque. waxtaan ci ak moom ni ko man kat dem naa seeti Idrissa li ak lii laa wax ak moom dem naa seeti président Abdoulaye Wade. moom it mu encouragé ma ci. wax ma ni man foo ci mënti toll lépp lu ma ci lu ma ci war a def man. n'hésite pas à m'appeler. lu ma ci mën a def dinaa ko moo tax démb d'ailleurs mm. bi ma ñëwee maa ma ko a jaale mm. mm-hmm. que gis ni kii sa xarit la mooy Idrissa jarbaat la ci yow lépp ci yow mm-hmm. mu nekk ci jafe-jafe boo nga xam ne gëm nga ni mënoon na ñàkk mm-hmm. parce que moom bokk na ci ñi nga xam ne dañu mës a gëm ni Idrissa ak Abdoulaye waruñu tàggoo a def aussi def na ko ci bon mais malheureusement xëy na boobu situation demoon na noo nga xam ni pour dindi woon loolu jafe na mais en Euh, dund na ko am beaucoup di dignité lu mm. mu mën a def di ko def maanaam waxal ñi mu ci war a waxal mm. ñaan na ci ñaan ñaanlu na ci lépp lu mu xalaat ni bu ko defee Idrissa génn ci kaso bi def na ko lu mu yaakaar ni bu ko defee également Idriss Abdoulaye du ñu tàggoo def na it mu ñaawoo ak président Wade. pardon taxul mu ñaawoo ak président ah Wade. pas du tout par du mm. tout dama la wax ne leen nit la ko du ñaawoo ak kenn. d'accord parce que loo ko gën a bëgg mu bàyyi ko ak soo ko waxee lu dul noonu mu muñ ko soo ko defee lu dul noonu mu baal la donc nit ku mel noonu kooku de moom du jàppante kenn day jafe pour ngay xuloo ak moom mm. la preuve am na ñu bari ñoo defoon nañu dundatul sax. waaw ndax gëj dégg tellement il s'est retiré nekk mm. dans la discrétion. Mm-hmm. nekk nag au service des populations. Mm-hmm. te li ma la wax nii bala nga warul xam. Mm-hmm. nga téye si micro wàcc nga paru. amul kër gooy dugg laajte te du ñu la wax loo nga xam ne séq na ko ak ñoom. te kenn ku ci nekk da ngay defee ni yow la ko séqal mosu ko séq ak sa morom. donc loolu je pense que vraiment nit ku baax mooy mel noonu. alors ginnaaw homme politique bi président Youssou Diagne homme d'état mhm. mooy kan mooy li ma la wax léegi bi mu jeexalee carrière mu au plan international mhm. dellu si au Sénégal nekk président assemblée nationale c'est vrai comme ni ma la waxee ñeneen président yi ñoo ko fa gën a yàgg mhm. mais la mu fat période bi bu nekk xam nga euh, am na benn cercle boo fa nekkee même boo assumé wul responsabilité bu ñuy wax di nga xam lu bëri di nga fekke lu bëri. Mhm. di yëg lu bëri. Mhm. loo nga xam ne bis boo ko waxee dëkk bi tàkk nga denc ko. Mhm. nga am lu la naqari kenn du ko xam ku la warul xamal du la xamal. loolu mooy un homme d'État. donc il a été véritablement un homme d'État jusqu'au parce que ba fi ñu toog di wax kenn mësul ni ba yuusu ne nangam. te bari na ci réew mi nag ñoo nga xam ni bu ñu leen falee ñuy tàccu. bis bu ñu leen wàccee ka faloon wàcce leen ñu def ko noonu. Mhm. opposant direct la ñuy doon bésu leen moo moo tax ma wax la ci njëlbéen bi. Mhm. ñi nekk ci langue politique gi tey dañuy war di jël ni président Youssou di ko jël comme modèle. Mhm. malheureusement ñi ngi jeex. parce que li ñu gis ci réew mi mooy buñ nga falee ci da nga koy daal da nga koy def sax yàlla. di ko tàgg guddeeg bëccëg suba ngoon. bis bu ñu la wàccee nga mel ni mu musuñu la woon a fal. Hmm. kal falut moom ngay def noonu. te pourtant muy man muy sama moroom kenn ju hmm. dañu jël benn nit démb Ablaye Wade la tuddoon tey Abdou Diouf euh, tey tey tey euh, Macky Sall la tudd. Hmm. bërki démb euh, Senghor la Abdou Diouf la ñoom la ñu fal ñu seet keet na ci nit ñi. woo la ni la kaay ma def le ministre. kaay ma def le premier ministre kaay ñu def le président assemblée nationale. mais buñ la ko defee ay nit dañuy tàccu. Mhm. ay nit dañ lay tàccu biñ lay fal. pourtant nit ka fa remplacé. Mhm. dégg nga coon ci benn woyam bu naan àddina lu mu la may ci xaritam la ko nangoo. wallaay. ci xaritam la ko nangoo dina ko nangoo ci yow. jox ko keneen. jox ko keneen noonu mooy àddina. Mhm. donc bu ñu ko nangoo ci yow jox parce que li may wax ni ci guddi fan. c'est-à-dire mënoo fexe ba doo doon ancien nangam. ancien ministre ancien ceci ancien cela. parce que boo ko boo déggul ancien rek loolu mooy da ngaa a génn àdduna. Mhm. donc moom. gars yi dañoo bëgg di remplacer rek te bëgguñu ku leen remplacer. ah mais loolu mënta nekk <laughs> mënta nekk euh, ma nièce dama lay wax gis nga man saa bu ma mësee am responsabilité. Mhm. bureau bu ma dugg bis ba may jëkk dugg. Mhm. su ma duggee damay julli ñaari rakka. wax la. sant borom bi. teg sama xel ci nag ni suba laa fiy jóge teg sama xel ni suba. laay quitter poste bi ma nekk parce que damaa ñëw fekk nit doon fa toog. waaw ñëw remplacer ko. Mhm. war xam ne ëllëg da nga fi ram ay nit da nga fi remplacer. kon bu ñu lay remplacer. Mhm. ni Youssou Diagne def noonu la war a def. Mhm. ma jox la benn benn benn anecdote. en mille neuf cent soixante dix huit. octobre soixante dix huit dañu def. congrès laa ko mën pour nga comprendre lan la parce que mooy le hmm. conseil régional des jeunes de Thiès du PDS. ñu jiital ma comme secrétaire général. Hmm. ñu dawal trois ans bay dugg quatre ans. war a bureau bi. yàlla dogal ba ñu renouveler bureau bi. Hmm. ki fa nekkoon nekkoon suñu responsable régional. muy suñu mag Boubacar Sall yàlla da ko yàlla yërëm. amiin amoon naa ak moom différent ndax na mu buggoon ma di ko doxale ak ni may doxale bokkul ndax man damaa libre indépendant. du ma tooñ nag du ma def lu ma warut a def. Hmm. waaye nag samay responsable dama koy assumer. mu indi rëkk sama diggante ak ñoom. Hmm. bi ñuy war a jour bi ñuy def congrès bi sur les quarante quatre sections yi ñu amoon ci région de Thiès. Hmm. ñu ci bari ñu ngi may dégg. les trente huit ñun lañu àndaloon. kon mënoon naa reconduire en tant que secrétaire général. ma woo Ngiraan Ndiaye ñu toog waxtaan ma ne ko Ngiraan mu ne am ma ne ko Boubacar mi jubóowuñu te yow jubóo nga ak moom. kaay jël poste secrétaire général man ma reculer doon secrétaire administratif ñu ànd liggéey c'est ce que nous avons fait hmm. te loolu moom la jàpp ni nit ku nekk hmm. ñu confier les responsabilités da nga war a am attitude bu mel noonu ah. donc pour revenir au président Youssou Diagne hmm. il a été un homme d'État jox nañ ko responsabilité jël ci moom responsabilité bi te kenn mësu ko dégg mu oh. loolu nag defe naa ni attitude homme d'État la mhm. kon s'il faut parler de l'homme d'État également je pense que aspect boobu mën nañ ko indi parce que homme d'État mhm. du rek sax ki nga xam ne dafay yor responsabilité yu màgg parce que kilifa mhm. boo dee instituteur da nga war a doon kilifa journaliste bii nga doon di ma laaj da nga war a doon kilifa bërum làmb mi dafa doon war a doon kilifa parce que kilifa mooy xam nga yem ci loo wërta wax doo ko wax loo wërta def doo ko def ay doomu aadama la lañ matuñu. ak mm-hmm. sunu lacune suñuy euh, atu. Mm-hmm. suñuy atu positif ak aspect négatif. mais dafa am loo xam ne boo bëggee doon kilifa ci am réew. Mm-hmm. da koy moytu. li ci jiitu mooy téye sa làmmiñ. mënu nekk homme d'état te loo yendoo ci présidence ba. wala loo yendoo assemblée nationale. wala loo yendoo ministère. fanaane ko waxtaane ci mbedd ak grand place tu n'es pas un homme d'état. te loolu je pense que président Youssou ah mel ni moom mën nañ leen reconnaître loolu. kon homme d'état ay jikko la. ay jikko la am d'état hmm. lu rek position ah. xam nga dafa am suñu benn magu géwél bu nekkoon Thiès bu ñu naan wax Ibra Fall Lam hmm. daf daan ni baadoolo man hmm. nañ koo fal mais kenn mënu ko def buur li nañ koo fal waaye kenn mënu ko def buur ndax lan bu jëfee rek nga xam ne kii baadoolo la bu jëfee. Mm-hmm. xam ne kii baadoolo la di nga gis nit koo xam ne amul lu lekk. Mm-hmm. daanaka mën ngaa waxan sax duwul ci moom la yem. Mm-hmm. waaye bu jëfee mbaa dox nga xam ne kii kilifa la gor la homme d'état la. pourtant yorul. waaw ah. donc homme d'état du am-am. jikko la. doxalin la jëfin la. du costume cravate daal maanaam ci jëf la. Eh, hein eh? ma ne homme d'état du costume ak ci jëf yi la déedéet du costume ak cravate mu ko hmm. ci àdduna yow tam coow lu fi am lépp borom costume ak cravate ak ñoo ko indi <laughs> waaw li ñuy yëngal réew mi bari na lool rek ñoo ko indi am na ñoo nga xam ne soxla wu ñu la seen kaddu bu ñu la ko joxee jeex na wallaay loolu mooy homme d'état hmm. nit waaw waaw la bu ñu la nee déet déet la mais ñun tubaab yee ñu lor ñoo ñu indi signature hmm. waaye xamuñu woon signature kaddu la ñu xamoon ñooñu nag ba léegi am na fi gis nga bëriki démb maa ngi seetaan seen benn confrère mm-hmm. muy ci mooy conférence de presse bi Aliou Cissé doon wax def pour publier la liste des joueurs mm-hmm. bi ñu demee boo wax ci contrat wu Aliou Cissé mm-hmm. am na ku ko wax sànq est-ce que gëm nga ni contrat bi ni ko waxee danañ ko defee noonu Aliou Cissé ni ko man kàddu moom ma gënal signature nit ki wax ak yow ba jox la loxo moo ma gënal signature loolu mooy un homme d'état waaye om d'état du nettali. Hmm. homme d'état du sos. am ñoo xam ne daal mën nañ koo signé sax te duñ ko def. mais mais bi mu ngi noonu. Hmm, hmm. dañ koy dañ lay wax. dikk wax la signé ko te duñ ko def kooku du homme d'état. dëgg la homme d'état day am bàmmeelu biir. ci leer na alors euh, président Youssou Diagne yàggul assemblée national waaye junj nga ñaari yoon euh, jaar-jaaram ak liggéey bu rafet ba mu fa def lan la ñu mun a jàpp ci bi mu nekkee président assemblée loo xam ne lii moom euh, président Youssou Diagne moo ko tamponné ñëpp teg ci bët. alors xam nga xam nga le rôle du président de l' assemblée. Mm. maanaam liggéeyu président assemblée. waaw du jël ay dogal. waaw ñaaree du fa si itam. waaw mais la koy sant mooy. Mm. da ngay jiite mbooloo moo nga xam ne yéen a yem garaat daanaka. Mhm. parce que da ngeen di doon yéen ñëpp ay député ñu ko tànn kenn ci yéen. donc li ci jiitu mooy nga nawloo leen. Mhm. te nawloo na leen député boo ci laaj. Mhm. dana wax Youssou nawloo na leen. koo ci laaj dana waxoon ne accessible na boo ko bëggee gis gis ko boo ko bëggee dégg dégg ko. loo ko wax tamit ci loo nga xam ci moom la dépendre. lu mu mën a def mu defal la ko te ñaari nit duñ ko dégg. loolu man liggéeyu ma ak moom à l'assemblée mhm. mais député yi mës a nekk ak moom à l'assemblée seedeel nañ ko loolu mhm. d'ailleurs moo tax démb ma di ci profiter di ko remercier mhm. le président Mamadou Seck nekk ancien président de l'assemblée démb li yaramam di ki yëpp met ñëpp dafa soox ba ñëw tëddëj bi lii ma wax nii mu wax ko donc c'est important donc taxawaayam moo doon xam ni rôle am asal hmm. assemblée nationale hmm. mooy fexe ba député yi mën a def seen liggéey correctement hmm. faciliter leen seen dem ak seen dikk lépp luy seen soxla bu mën ci taxaw di leen mën a déglu di jël seen i yitte ak seen i tawat di ko eggale fa nga xam ne fal ko war a eggale encadré itam liggéey bi vraiment loolu daf la ci lim ci war a mën lim ci mën a def alors euh, per de famille bi bala ñu ciy egg euh, ñu wax ci nit ki d'abord bu weesoo xëy na euh, politique bi ak homme d'état bi moom président Youssou Diagne ak ñi mu daan jëflanteel sa digganteek moom d'abord ak ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon làng gi ci wàllu nit ak nit. d'abord générosité xam nga générosité buñ koy wax. Hmm. ñu bari dañuy jàpp rek koppar. waaw mais koppar ci gën tuuti. Hmm. xalaat mhm. xam-xam mhm. ay idée nga nangu ko partager ak nit pour lu jariñ nit ki lu jariñ réew mi mhm. loolu mooy di jëkk ci générosité te am na ko ensuite lu xam ci lu baax ci ku mu gis ne la diw mii de nii la mel ku baax la jàppal diw kii ku am coloré la kii ku am secret kii ku am nangam ak nangam dépp rek maa ngi dégg benn benn nit bu ko doon buy nettali lu mel noonu. Mm. ni ko yow de ci Youssou laa la xamee. Mm-hmm. te ba ma lay xam dama da nga dañuy wax ba tudd la. te moom ña doon wax waxuñu woon ak moom. Mm-hmm. ñeneen na doon wax di tudd nit. Youssou dal di ci soog a tontu leen ku am kóllëre nit ku goree ngi noonu. Mm-hmm. donc jàpp naa ci moom loolu. générosité boobu nga xam ni lu baax bu la gisee wax la ko. am bokk ak nit ñi. loolu beneen forme de générosité la. Hmm. seetul nag li mu lay jox nii yaa ko ëppale hmm. seetul loolu. d'accord war na la jox jox la. loolu nekk na aussi loo am mais démb am na benn nit bu fa def benn CD. bi ñu hmm. koy jullee. kooku ñeseen la. mu ni euh, euh, kii ñas te mu génn àdduna temps yële passé euh, nga jégal ma turu laa xaw fàtte. Euh, daf daan voyager lu bari sax ambassadeur la woon pratiquement lañ ko doon tuddee. Mm. dafa doon ñëw ngapparu ay taalibeem ay taalibeem yu wër fu ñu koy dalal nee na bi ko yuusu gële yëgee la jël kër jox leen. Mm. ba pare ni leen yéen de li ngeen ma defal xamu leen ko ndax ñun dëgg la ay xaadir lañu waaye ci suñu famille dafa am loo dañ ko séq ak ñii ma doon ñaan yàlla am occasion gis ku bokk ci ñaseen mm. ba di ko teral loolu mooy seen diggante ñoom ñaar donc il avait cette générosité du xaar nga laaj ko mm. du xaar nga ñaan ko du seet am nga wala amoo du seet yaa ko ëppale wala moo la mm. donc loolu aussi bokk na ci loo nga xam mën nañ ko jàpp ci loom yuusu hmm. njabootam père de famille bi mu doonoon gannaaw jaxasoo woon nga ak moom ba xëy na euh, yegg ci njabootam ak bokk gi leen boole loo ñu mën a wax ci ci président Youssou Diagne euh, en tant que père de famille ak mbokk waaw xam nga ñaare dinañu gis euh, xëy na sax da di un sensible boo nga xam ne sore ci du du yomb mais danañu gis ñaare ci famille kilifa génn àdduna famille bi ñuy jaar fii ñuy jaar fii mu indi ay ay ay vraiment yoo xam ne mun na ñàkk te mel na ni loolu fàgguloon na ko li tax ma ni fàggu na ko léeg-léeg ko ana diw mu ni ah ma nga ca këram bërëb sàngam ci gàtt mbat maanaam mën naa ni ko ana sama hmm. ah, kooku de xam nga këram fii la nii ak nii la demee ana diw ak kooku ma a ci këram nii ak nii ak nii la demee. Hmm. on ne peut pas entrer dans des détails mais organiser na këram ba kenn ci nekk. Hmm. yaa ngi fa nga war a nekk. di def li nga war a def jàpp sa njàmbur. taxaw nañu boo tax kenn dara. Hmm. loolu nekk na loo nga xam ni en tout cas man dama koy jël leçon ci moom. parce que man damay wax ni su ma ko yàlla man loo. yàlla na mu yàlla sutura bala may génn àdduna. sama famille kenn taxawu na njabootam. taxawu na njabootam voilà. mënuma dugg ci considération mais taxawuma njabootam loolu mën nañ ko wax hmm. te njaboot tamit koo ci dëkk micro dina wax ne sa papa taxaw nañu seede na ko waaw. loolu lu am solo la alors euh, euh, ñu dellusiwaat ci politique bi ndax tey mhm. yenn saay euh, duma la ko xibaar ñu gis jëfin yu ñaaw ci wàllu politique bu ngeen wàccee sur le terrain wala ci kàddu yeeg yu ni mel président su Diagne nekkoon homme politique fa mu nekkoon ngapparu gi nga xam ne fa la dëkk ni mu daan defee politique lan nga jàpp ni tey homme politique yi war nañ ko cee roy. mooy li la wax ci ci njëlbéen hmm. parce que li ma jàpp mooy euh, nit day jox lu rafet di wax lu rafet. président Wade da doon def bu ñu génnee conseil. Hmm. ministre yi bëgg mu recevoir dem daf leen di recevoir. Hmm. te comme man dama daan assister à toutes les audiences. Hmm. mais buy recevoir ministre yi du ma fa nekk mun naa fa bañ a nekk. donc ma woon c'est un temps libre. ma ne ko président mu ne woy ma ne ko dama bëgg a dem kër Ousmane Tanor Dieng. mun ma ban Ousmane Tanor Dieng du parti ma ko ah mun mais Hmm. bari ko ah président mu ne ah man ko Ousmane Tanor de mag la mu daal di ree ni ma gis nga lii nga def nii. Hmm. mu naam man noonu laa bëggoon ñëpp di ko doxale tey Habib Sy ñëw ni ma kër Moustapha Niass laa yendu Aminata Tall ni ma kër Ousmane Tanor laa añi hmm. j'aurais bien aimé am ce type de relation. loolu comportement yooyu dama wax ne mag ñi noonu lay doon doxale su ma nee mag ñi nag. ku mel ni Youssou ci la bokk. ku mel ni président Pape Diop ci la bokk. di nitu jàmm xam nga wax dëgg wax wax jàmm du tar nga wax dëgg. Mm-hmm. dégg naa tey ci suba même euh, mon ami Cheikh Tidiane Gadio di répété loo nga xam ni lu may faral di wax la. Mm-hmm. te ñoo bokk fu ko déggee. Mm-hmm. mooy professeur Cheikh Anta moo daa wax ni dëgg bu ànd ak saaga daf koy néewal doole. waaw mën nga wax li ngay bëgg a wax ak fulla ak fayda. te du bu mat sëkk gëm-gëm. te du ñaaw. donc président Youssou pour revenir à lui mhm. su demee ba mën a am benn benn benn poids au plan politique bay nekk président de l'Assemblée mhm. te kenn musul dégg mu xuloog nit kenn musul dégg mu waxante nit lu dul noonu mhm. c'est parce que loolu la jiite jiitaloon dans sa démarche kon jàpp naa ne tey ñun ñi nga xam dañu nekk dans l'arène politique war nañu loolu ñu di ko sóoraale te xam ni lépp day mujj jeex nag ñu toog ancien rek ay dégg moo moo fi mujj te même balay ancien boobu di jot bu dara xewee ñëpp ci ciy ànd. Mm-hmm. bu nit génnee àdduna amul parti politique amul syndicat. Mm-hmm. amul tarixa quelquefois même amul diine. Mm-hmm. lu mel ni équipe nationale buy football tey sénégalais yu baax yëpp a ciy ànd. amul ku féete gauche ak ku féete ñu baax ñi laa wax de. amul ku féete gauche ak ku féete <laughs> droite. daa am ñeneen. ah am na yeneen am na Samba Surum ngay ci biir kay <laughs> dégg loolu am na ci. donc qualité yooyu nga xam ni moo war nekk ci un homme hmm. parce que man de li ma gëm ni mooy politique mooy jaamu yàlla. Hmm. kenn mënul fexe ba dugal leen sam boobu bii nag lu dul politique jaamu yàlla la. Hmm. parce que lan mooy politique am na fu sa baat joti kenn baatam jotiwu fa. sa fa baatam jotiwul dëkkam amul ndox nga fexe mu am ndox. dëkkam amul fu ñu fajoo nga fexe mu am fu ñu fajoo. diggam amul école wala amul daara nga fexe ba mu am daara hmm. état bi topp toppatoowul daara yi ni mu war nga fexe ba muy toppatoo daara yi hmm. ay nit ñu xiif nga fexe ba ñu lekk hmm. ay nit ñu feebar nga fexe ba ñu faju loolu bu dul jaamu yàlla xamuluy jaamu yàlla te loolu de mooy rôle un homme politique. politique yenn saa yi nag ñu def leneen maintenant ci defee leneen nag. yaa ko ci dugal waaye politique bokku ci. maintenant lépp loo mën ci dugg nag mën nga ko defee ni ko war a defee comme mën nga ko bañ a defee noonu. mais gis nga fi ay jàkk yu ju tëj ndax imaam yi dañ doon xeex wala dañuy mhm. xëccoo taxul ñu ni diine baaxul mhm. gis nga ay match de football wala làmb joo nga xam ni xeex nañ fa rent nañ fa ak leneen ak leneen mhm. ay minorité moo koy def xam nga li ñu war a moytu ñun ñëpp sàmm ko dans tous les domaines mooy bu ñu nangu minorité bi di ëpp doole majorité bi boo duggee ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam saaga rek lañ fay def waaw mais boo leen wàññee bañ lu ñu bari bari batuñu téeméeri nit. Mhm. sur dix-sept million de sénégalais. Mhm. ñooñu batuñu téeméer. kon bu mu tax ba ñu jàpp ne réseau yi baaxul. Mhm. boo demee ci politique loolu am na fa. boo demee ci diine am na fa. boo demee ci sport bi foo dem am na fa. mais nañu non seulement nañ leen moytu. mais nañ leen seet bu ñu leen mënul sànni it. ñu fexe ba ñu wéet. je pense que loolu. bokk na ci li nga xam en tout cas suñu mag ñi jàngal nañ ñu ko. Hmm. en tout cas man xëy na dama am chance nag. Hmm. di assurer une transition. Hmm. transition bi mooy mag ñi ñoo ma mag mais xale yi maa leen mag. <laughs> waaw te jege nga mag ñi am naa fekkee ci ñii. fekkee ci ñii. mais tey boo xoolee arène politique bi ñi fiy jiite ñëpp. y a dix ans politique ñu woon. waaw kon lu bari ñu ko xam. donc yal nañ yàlla may xolu muñ. ak xol bu yaatu ba ñuy mën a yaatal suñu dënn hmm. lépp lu ñu xam muy néew ko bari ñu ko di ko partager avec la jeune génération seddoo ko alors seddool ak ñun partagel ak ñun loo dund ak président Youssou Diagne loo xam ni lu la marqué la euh, ci seen diggante yéen ñaar euh, am na benn détail boo nga xam ne de marqué dama hmm. détail laa ko tuddee mus hmm. naa ñëw këram bi may dugg ci kër gi bi may egsi ci buntu kër gi maa ngi fekk benn nit ku toog ci bunt bi na ma ko gisoon sax na ma yàlla baal dama defoon ne nit ki euh, yaramam dafa neexul hmm. ma gardien bi dugg ni ko diw mi ngi ba ñuy génn hmm. mu seen hmm. mu ni nuyu ko ni kii kan la waa ji daal di jóg présenté wu ginnaaw bi sax laa xam kana nekk ci ay jafe-jafe yu doy waar te la kooku doon lijjanti jamono boobu. Mhm. xëy na moom ci boppam jekkuwu ko fa mu toogoon. Mhm. mais def na gymnastique boo nga xam ni bu yéeme la. Mhm. trouver kooku solution daar daar ba pare jox ko oto mu yóbbu ko mu njibbi. xam naa parce que ñoo nekkoon donc la mu doon dox la ko taxu mu jóg lépp. mais dafa am loo xam ne ku ko yàlla baaxewu rek mënoo ko defal doomu aadama. dëgg donc humilité boobu nga xam ne am na ko mu bokk générosité ba nit ñëw sa kër guddi te tàgguwu ngay kilifa mu jarale effort yi mu def pour mettre kooku dans des conditions ba kooku mën a ñibbi këram loolu bokk na ci lu ma marqué waaw loolu wane na wane na wane générosité bi nga xam ne yéen a ngi koy wax te président Macky sàll itam euh, seedeel na ko ko bi mu génnee absolument hmm. moom la ko ñëpp xamal hmm. humilité générosité discrétion Mhm. loolu moo marqué toute sa vie keneen mënu li ci wax leneen nag. Mhm. waaw lana doonoon taxawaayam ci retrouvaille euh, de la grande famille libérale bi nga xam ni yéen si ngi siy dox di si wax. mais mosul bëgg sax division bi am. Mhm. <laughs> musul et puis li mu bëgg sa wax mooy. ne te décourage jamais. am loo nga xam ne jamono moo koy indi. il me dit boo boo boo sab mu ne ma xam nga tu parles de retrouvaille de la famille libérale. man quoi mu ma c'est bien pour di ko fàttali nit ñi mhm. mais jamono moo koy imposer mhm. loolu moom la bandax jamono mhm. moo koy imposer dina am lu xew loo nga xam nous serons obligés de nous retrouver ñu bëgg ko ñu bañ ko donc lu mu gëm la mais il me disait le temps fera son travail te loolu dana dana mën te loolu gëm naa ne li mu wax am na parce que euh, xeeñ na ko alors wax nga ci njëlbeen ne président Macky Sall seeti na ko ba mu feebaree euh, mooy wone ni garde na ay relation ak moom euh, yeneen libéraux yi yan relation la am ak ñoom surtout président Wade peut-être bu fekkee xam nga si dara. waaw xëy na il m'est difficile quand ma ma ma ma ma wax ci loolu parce que wax dëgg yàlla. Hmm. comme li ma la wax rek nit la koo nga xam ni. dafa discret. di olof di wax ndawalu guddi. Hmm. xam nga bu ñu tegee reer guddi mu lëndëm. waaw. ku làmb daj dara rek da defee defe ni yow dong la. yow dong nga daj. fekk xëy na la nga daj sa morom daj na ko. mbaalu ko raw. <laughs> waaw mbaalu raw voilà. donc vraiment ces rapports avec les autres libéraux. Mm. en dehors de ñi ma xam mooy ku mel ni ñoom Idrissa ku mel ni ñoom Omar Sarr. Mm. Euh, ku mel ni ñoom wali Fall xam ne ñoom ñëpp euh, macha allah gis naa la ci dëj bi démb. donc ñooñu vraiment gis naa ni ils ont toujours gardé ces relations la mm. parce que bul fàtte aussi ne amoon na jamono yoo xam ni euh, réew mi bi ñu koy créé PDS la ñu génne woon. Mm-hmm. ñoom dañ créé ji réew bi donc xëy na loolu am na sax tuuti ñagas-ñagas bu mu créé entre les amis de réew mi et ceux du PDS. Mm. mais tout compte fait xam nañ ni euh, li olof naan karkare doon kat lëppa lëppay mujje dew nde mm-hmm. xam naa xamoo loolu <laughs> mais xam na ñu façon mënuñu tàggoo donc ñu mënul tàggoo il faut ñu ànd mais très franchement relation yi mu mujjati si ak le président Wade moom dëgg-dëgg xamuma ci lu lu bari mm. waaw président Macky Sall moom gardé woon na relation yu yu baax ak moom. oui parce que gis nga ko wax naa la ko bi mu feebaree dem na fa waa këram wax nañ ko démb mm. remercier ko. Ah, donc euh, xam naa ne gàttal nañu relation yooyu. yu baax alors mbébétam lan la woon xamoon nga ay ambition yoo xam ne amoon na ko pour réew mi lu mu bëggoon a def ci Sénégal. alors loolu nag wax dëgg ci li ñu li ma mujj xam ci moom. Mm. mooy au plan politique. Mm-hmm. fexe ba ñi mën a ànd ànd. ñi mën nga ànd di waxtaan ça il l'a toujours prôné hmm. ñi mën a ànd mooy par exemple ñi bokk famille politique waaw ah. retrouvé wu même bu ñu mënul ànd ak ñeneen dafa war am ay passerelles yoo nga xam ne nit ki dañuy jox ko di waxtaan dans l'intérêt du pays dialogue bi bañ a dagg waaw d'ailleurs un jour mës naa ko ni mais président mu naa man ko idée yi ngay wax baax na man ko xam nga man dag may toujours may prôné le dialogue le consensus si cela mun a man ko mais li nga ci man mënu ma ko am na ñu bëri ñoo boo jógoon tey sol sa dàll dem seeti leen boo waxee ñu ñu déglu leen ñu déglu la munu ma xalaat yi mu ngi fi mais yàlla mayewul day able objectivement am loo xam mënatuma ko physiquement je ne peux plus le faire et c'est objectif donc li ma jàpp ci ci idée boo nga xam ne amoon na ko en mu ñor ko mooy li ma la wax nii ñu fexe ba ñi war a mën a ànd ànd donc c'est sa famille politique mm-hmm. fexe également ba ñooñu bu ñu àndee di wax ak ñi nga xam ne mënuñu ànd ak ñoom mm-hmm. mais je sais également que amoon na cofeel gu rëy a rëy jëm ci Idrissa Seck laalu aussi je peux en témoigner mm-hmm. parce que au moins c'est une des rares personnes nga xam ne musuma wax ak moom te tuddul loolu moom remarqué naa ko je je l'ai Mhm. amoon na cofeel bu rëy rëy rëy jëmale ko ci Idrissa mhm. d' ailleurs bokk na ci ñi nga xam ne jàppoon nañu ni l' du pays se fera avec Idrissa ah waaw loolu gëm na ko lu mës gëm la lu mës a mhm. la aussi xanaa ñu bàyyi la rek euh, Serigne Mbacké njaay nga euh, jeexal bu fekkente ni am na loo bëgg euh, ndaw yi jàpp ko si Youssou nga tëjee ko wala message boo xam ni yaa ngi koy lancé ñu mu soxal waaw message bi da d'abord day nekk un message de paix jàmm dal parce que gis nga su ma déggee tey ñun ñu nekk ci homme politique ñu nekk ay homme politique ñuy wax ceeb suukar diwlin nangam ak nangam démocratie loolu baax na de loolu baax na mhm. mais dafa war a am fu ñu teg suñu bët tey parce que ay nit bu ñu la jiitalee mhm. jiital la ñu wax kon yaa ci kanam kon da war di gis loo nga xam ñi ci sa gisuñu ko mhm. lan lay war a gis tey mooy xam ne Sénégalu deux mille vingt euh, euh, deux mille vingt deux vingt trois vingt quatre hmm. jëm kaw Sénégalu mille neuf cent soixante dix mille neuf cent quatre vingt hmm. Sénégal bële Sénégalu sécheresse la woon xam ne lu ñu yaakaaroon mooy ndax nawet bi baax na pour réew mi mën a naat hmm. dañuy jublu tey ci parce que booba ñu nekk Sénégal googa ñañu ko séqaloon ci bitim réew la ñu doon def mooy di ñu dimbali ci lu ñu mën a dunde ñu di ko tudd ay vivres de soudire ci jamono yooyu tey ñooñu ñu ko doon sëqal ñuy seet lan la ñu mën a dimbalee pour ñu am lu ñu dundee dañoo jël seeni gët teg ko ci pétrole Sénégal gazu Sénégal ooru Sénégal feeru Sénégal zirconu Sénégal naka la ñu mën pour jot ci pour mun ko jariñu loolu nag ñoom bu jaral leen lu ne mu jaral leen faat ay bakkan mu jaral leen déstabiliser réew mu jaral leen taal ab réew pour mën a jot suñu pétrole suñu gaz ak leneen ak réew nag bu tolloo foofu ñëpp ñi ko rawatina ñi ko jiite su ma nee ñi ko jiite waxuma rek gouvernement parce que même que yore parti politique am ay ni yu ko doyloo topp ci ginnaawam ki xam ne kilifa diine la am nit yu ko doyloo topp ci ginnaawam ki nga xam ne syndicat la yore am ñu ko doyloo topp ginnaam ñoo ñëpp dañ ci am responsabilité mooy naka lañu mën a def ba suñu réew mi jàmm ji fi am ñu mën ko préserver dal ji fi am ñu mën ko préserver parce que dëkk bi tey bari na ay jaay ko adduna bi laa bëgg a wax. Mm-hmm. ay jaaykatu peinture joon yoo nga xam tey boo soxloon ay milliards mën nañ la ko jox financé la pour nga déstabiliser réew pour ñoom ñu mën a jot ci koom-koom yi am ci réew. Mm-hmm. tey boo xoolee Sénégal te ñoom ñuy roñ di tey boo xoolee Sénégal réew ñu wër yëpp ñi ngi tàkk le Mali est déstabilisé hmm. le Niger est touché le Bénin est touché le Nigeria est touché le Togo même est touché la Côte d'Ivoire est touchée j'en passe tey ñi nga xam ne ay terroristes lañu seen benn objectif la ñu am contrôler réew moo nga xam ne dañu mën a accéder ci géej pour mel ni réewu Sénégal. donc loolu bu fa réew tolloo kenn ku nekk war ci bàyyi sa xel xam ni nañu moytu nañu def attention bu baax a baax parce que bari na ay réew yu tàkk lu tuuti moo leen taal. Mm-hmm. ñu bàyyi waxante bon bàyyi waxante lu ñaaw di suturaalante parce que na ma ko yàlla baal ci ñi ma ko rax amul benn doomu aadama boo xam amul looy nëbb. dëgg la amul. Mm-hmm. yàlla dafa sàkk guddi sàkk bëccëg. Mm-hmm. sa kër sax boo fa nekk bu guddee da ngay dugg sa néeg tëj ko. Mm-hmm. la nga fay def yaa ko xam. Mm-hmm. kon bul topp nit ki di ko luññutu pour weer ko. Mm-hmm. bul koo ko. bul def nit ki boo ko contré même boo ko xamalul nga sosal ko. bari loolu daal lay dénk sama bopp. di ko dénk tous les sénégalais. mais surtout di ko dénk aux hommes politiques que nous sama bopp rek ko jëkk a dénk. parce que tanewuma kenn bay jox kenn leçon. waaye nag li xalaat mun naa ko wax. te lii nga fi wax nii ki ñu doon waxtaanee président Youssou Diagne ci la doon dox. sutura ak wekk sa nawle xam nga xam mhm. nga li la wax léegi ni la. Mhm. xay na man dama am chance su def transition nekk ci transition. Mhm. ndax ci président Abdoulaye Wade laa jëkk a tàmbali politique. ci moom laa bujjee. jaar ci jaar am jaar jaar ak ñu bëree bëri bëri. Ousmane wax naa la ko léegi ku ko jege xam nga sama diggante ak moom. Amath Dansokho ku ko jege xam nga sama diggante ak moom. Mhm. Sémou Pathé Guèye ku nga sama diggante ak moom. Mhm. Mamadou Diop l'ancien maire de Dakar bàyyi la woon ci man du ne woon rek sama patron. Mhm. may ànd ak moom ak le doyen Mamadou Sène Mbengue yal na ni yàlla jërëm. le doyen Thierno Birahim Ndaw. Dabi Diagne Mbaye Jacques Diop. man foofu laa jaar foofu laa màggee. kon am na loo nga xam ne jël naa ko ci ñoom. war naa ko mën di nettali à la nouvelle génération. Mhm. transition boobu nag moo ma permettre xay na mu mën am attitude boo nga xam ne nit mën na ko comprendre mën na ko bañ a comprendre. Mhm. mais mooy sama ngëm-ngëm. jërëjëf Serigne Mbacké Ndiaye euh, monsieur le ministre amoon nañu mbégte lool dalalaat la si démb ak tey doon waxtaanee su Diagne euh, bokkoon ci parti démocratique euh, sénégalais nga jëflante ak moom lu baree bari loo xam ni xëy na lépp sax xajul ci émission bi waaye lañu waroon a xam ci moom muy ay jikko yu rafet te jubluwaay bi di ni nga tàmbalee rek fexe ba fàttali ndaw ñi ni am nañu mag ñu baax ñoo xam ni war nañu leen a xam moom itam ñu jéem ko immortaliser ci fii suñu doole yem waxtaanee ko wax jaar jaaram wax jikko yu rafet ak surtout taxawaay bi mu taxawee woon ci langue politique bi bu ko defee mu mun a servir d'exemple euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ci ginnaaw xëy na ndaw yi nga xam ne ñooy doog a tàmbali euh, politique ak sax ñi ne ci bunti àddina ndax jikko yi rafet moom jikko yi rafet rek ku ne foo ne war nga ko mën a làmboo ñu ngi lay gërëm bu baax a baax en tout cas di rafetlu bu baax aussi sa disponibilité ci wuyu ñu saa yu ñu la woowee ci yu mel ni rawatina jërëjëf merci beaucoup jërëjëf kon mbokk yi seen émission démb ak tay la woon ci réew mi FM di leen dig daje beneen dimanche incha allah gërëm Diabo Diallo euh, mi nekkoon si jàppandal gi euh, ñu leen di fàttali ni waxtaan wi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi TV officiel suñu chaîne ci YouTube jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf